ba paree ci loolu ñu ne nga jóge ci loolu nga dem euh, par exemple nga bëgg a fay euh, sa jabar mu lekk nga jël sa jabar nga jënd lekk si kër gi nga jël ko madame maanaam dama lay jox cinquante mille déglul de cinquante mille pour dépense su yow sa jabar sa doom ak yow déjà bu fekkee am nga ñaari doom ñeenti nit ñu lekk ci cinquante mille cinquante mille boo ko diviser par trente euh, fifty thousand divided by fifty by thirty jéggal leen ma. 50 000. nga diviser ko par 30. 1600 1500 1500 mille cinq Nga dépensé par jour Yang may de mille cinq CFA CFA nga dépensé par jour CFA nit dépensé c'est impossible CFA nga bëgg yow nga lekk ci sa jabar lekk ci sa ñaari doom yi lekk ci 1500 CFA donc 1500 CFA boo ko bëggee par jour donc ce qui veut dire que y a problème léegi yow déjà bu ma bu ma calculer bien tu es déjà dans des problèmes parce que boo fayee loyer nga fay sa courant bu ndaw bi nga fay sa ndox nga fay sa dundu yaa ngi ci problème déjà en tant que professeur koku borom salaire bu mag bi la fatel manœuvre bi fatel ki nga xamné 30000 lay am ak 40000 koku déna bu yag koku néeg la yor bu fayé courant du lek wala bu agné du rer wala bu réré du ndek donc koku amna problème bu yag dama tok demba sama ben xarit ñew ne ma may waxtaan ak sama ben xarit mu ne ma mais grand mané ko waaw mu ne sénégalais jafé na dimbali mané ko waaw mu ne ma est-ce que xam nga ne àdduna li si yàlla sàkk yëpp sénégalais moo ci gën a truand ma ne ko en en réalité man jàppewuma ko noonu xam nga man nu ma ko jàppee man dama ko jàppee ay doomu aadama yu nekk ci jafe-jafe ñu war a dund et ils le à tout prix parce que am na loo xam ne doomu aadama bu ci yeggee désespéré moo ko ci dugal nekkuma di conda ku di condamné euh, kuy def kuy tooñ wala kuy wax wax bu ñaaw wala kuy def yëf jëf ju ñaaw déedéet mais dama xam man sama situation de famille moi je si un père de famille xam naa yenn saay ci àddina bu dépense daan jafe ci situation yim lay fekk loolu fàtteel aussi malades yi malades yi nga xam ne aussi ils sont malades fàtteegu leen dinaa ci ñëw Ibou San léegi imaginel tey benn doomu sénégalais bu xëy jógee këram muy borom kër mu ne jabaram maa ngi wuti dépense bàyyi ñetti doom ginnaaw doom yi di jooy papa maa ngi dama xiif di wañaaru jabar ji ne ko allah ji de dara amul ci bir keur gi sa xel bi yeb day naaw nga genn ci biti nga ne da ngay wuti lo dundale sa waakar. nga ñew tok taxaw ci buntu boutique gis nit ku melni ni Ousmane tunkara rek mu tek portable am portable bi yow xam nga ne togn la boko jele boko jele dem jaay ko togn nga bo jele alalu jambur togn nga yalla deug la mais nga tek ko nga to elage teg ko tunkara teg ko dugg ci duus bi yow nga toog xalaat maa ngi bàyyi ñetti doom yu ndaw amuñu lu ñu lekk ñaan naa leb naa fu ne léegi kenn dootuma lebalati ñaan naa fu ne kenn mayatuma wallahi billahi nga jël portable boobu nga sàcc ko nga dem jaay ko nga jël alal ji nga dem dundal ci sa waa kër xam nga euh, ci société bu normal dañu ne loolu c'est pas normal mais ci société bu anormal loolu c'est très normal si société bu anormal ça c'est très normal c'est très très normal xam nga bu doon te donte bu doon borom day sàcc portable bi jaay ko dem jënd ci ay yére yu rafet jënd ci cadeau de Noël dimbali ci ay doomu aadama loolu ay foutaise la mais dafa bàyyi ñetti doom yu ndaw këram yoo xam ne amuñu lu ñu lekk ñu ngi jooy ñu ngi woyaa woñaaru yaay dama xiif ooy oh yaay papa dama xiif amuñu ñun Sénégal amuñu ay société yoo xam ne tey par exemple bu ay doomu aadama nekkee ci jafe-jafe comme Amérique ñun am nañ ko fii am nañu ay shelter am nañu ay endroit yoo xam ne mën nga fa daan mën nga fa dem tëddi am nañu ay endroit yoo xam ne c'est sociale boo demee mën nga faa lekk mën nga fa jëlal lekk pour sa doom pour ay nit léegi nit ku mel noonu xam nga bu ko police jàppee Sénégal luñ koy def dañ koy door ba mu dé police buñu jappé nit ku mel non duñ ko laaj situation diw naka nga def ça va bien no tuddu mustafa mustafa fo dekk maa ngi ñaari tali wala Caaroy gar wala mangi ngi dëkk eh, Angle Gumba wala mangi ngi dëkk fii nga wax fenn mustafa est-ce que sa wa keur nuñu tuddu nga né diw sa jabar lan euh, lan moy eh, lan lay liggéey nga né liggéeyul say dom ñonga fa lan lañuy def ñepp nga xif xam nga dans une société normale loolu boo ko waxee dañ lay ne ok Moustapha li nga def vraiment c'est c'est contre la loi te xëy na dinañ la ci punir nag pour jàngal la ëllëg bu ko defati mais nga dem jàppi famille Moustapha nga dundal leen nga dimbali leen nga def leen ci benn situation boo xam ne dinañu am moyen boo xam ne dootuñu dundati loolu mais déedéet ñun suñu président dañuy jàpp Moustapha ñu dóor ko masque courant mu dee yaayu Moustapha euh, jabaru Moustapha dee ak misère yaayu Moustapha dee ak misère doomu Moustapha yi ñu mujjee ci benn orphelinat boo xam ne ay tubaabu français ñoo fay nekk am na ci ñoo xam ne dañuy màgg màggaay bu baax am na ci ñoo xam ne dañ la dañ fay yóbbu xale yi def leen ay sex slave ay maanaam ay ay ay esclave de de de de sexe wala ñu trafiquer len def len euh, dugal len ci ay humain trafiquant yobul len yobul len ci yenen dekk def len ay mbindan wala fomp lo len ay ay yére ay dàllu bour wala def len ay ay ay jam jaay len ci yenen rew loolu la Sénégal di dund notre république c'est c'est des choses comme ça yoy ñoo fay xew Legi, pendant ce temps il y a deux ou trois pour cent des Sénégalais qui sont euh, des élites ñu tuddee sen bop ay élites Bo laajee sa bop, sa bop, lan def élite parce que moi j'en connais quelqu'un quelques-uns nga la leen barki Dembo Ndiaye gise won nga ak ñoom xamoon nga façon nit ñi kan lañu tu les connaissais nga ne len diw looy liggéey xam nga diw muy il s'appelle conseiller ministre la c'est un con ministre conseiller la ministre conseiller manam amul bobu bobu bobu ki Sénégal rek la am Bobu poste Sénégal rek la am maanaam suñu président dafa créer ay poste yoo xam ne boo mënul sàcc bu la mënul may alal comme directement ne la kaay ma may la cinq cent milliards day jël alal bi mu ne la léegi xaaral ma jox la poste weer bu ne ma lay fay weer bu ne ngay am salaire te doo liggéey comme Tunkara 2STV Tunkara mi daan ŋàññe président de la république di génn di dóor sur la table wala Souleymane Jules Diop mi nekkoon fii ci diaspora bi di wax dëgg bi di dal ci kaw ab Ablaye wadd ba ñun ñëpp ñu ne voilà vraiment kii de ñu mel Sénégal soxla na juróom yu mel nii mu rasta nag man daal góor jigéen la ma daan saf boobu te góor jigéen la sax mi ngi ci liste bi góor jigéen la ma daan saf booba ndekete moom la waaye boobu man dama yaakaaroon rek ci sama biir xel ne waa limuy def ni yëpp da koy def pour Sénégal mais moi attends hein, je vais te dire je le connais parce qu'il venait il venait ici et il était avec un ami mais quand je le regardais moi je n'avais pas beaucoup de confiance sur lui man musuma ko wolu. man malen leen wax li, man musuma wolu Souleymane Jules Diop PD la nak fagit la góor jigéen la dem len ngeen kol, ngeen top dossier yi Tunkara len wax tak len ko téré te du deñ c'est un PD voilà mais Manela, man ça ne me fait, ça ne me rendait pas ça ne me rendait pas très fier de le voir Boumako Gissan, ko damay ne wadi, ji lu louche ci Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gars là parce que xam nga xam nga man dangam na xaab lay wedd xam nga man Macky Sall ba mu sàccee xam nga man nangam nangam xam nga man Sénégal billahi waajee dañ ko war a dañ ko auditer donc moi il y avait quelque chose qui ne me rendait pas confiance Mané, dis, attends il y a un problème mais ce problème on le regarde on le regarde regarde où ce où le problème est à terminer xool fi problème bi Le problème bi fan la jeexee on a pris Souleymane Gil Diop on l'a mis ministre conseiller ministre conseiller il a un salaire man vous jéggal ma mes amis damay wax lo xam tay catastrophe bu intercontinental. dama bëgg sénégalais yi ngeen bal ma ak nak ndax toujours ay toj-toj lay wax toj-toj bi may waaj a wax dina rëy lool waaye ngeen jéggal ma ci mais lan moo tax ñun suñu président de la république muy bëgg ay góor jigéen di ko jege muy amboo ci ay góor jigéen yu bari nag xam naa ci yu bari de day comme Racine Sy comme ñeneen am ño xamne yeggaguma ci ñom comme yeggaguñu ci liste bi comme ay Souleymane Gil Diop comme ay ñeneen ak ñeneen te bimu fi ñëwé bima dajé ak mom j'ai vu quelques PD autour de lui te day teju ak góor jigéen ci bir nek mu day am maanaam euh, euh, euh, entretien ngeen jéggal ma ngeen jéggal ma parce que doomu adama ñu ne lu la bu ko wax ñële ma wax daf daj ma wor comme ki woraguma président la xamna ci xalé yi jigéen yi comme ya awa ak ñeneen ñoñu wor nañ ma voilà mais bima ma jaaxal ci affaire président de la république comment ça fait-il que moom góor jigéen ñi yépp daf leen di embaucher ñu jege ko soit daf koy def parce que góor jigéen dañoo a xuloo mën a man koo xeexal wala dafa am lu ci lëndëm lan moo ci lëndëm man bëgg ham, xam ku xam nag nag ma wax wóoruma parce que gisuma turam ci liste bi donc du ma fi toog ma accuser ko moom ne président lii la waaye xam naa ne man ak seede ak sama ay bët xam naa sama diggante ak yàlla déglu leen ma billaahi wallaahi tallaahi jullit la sama diggante ak yàlla ak sama taraay bàmmeel gis naa président de la république mu tëju ak ay góor jigéen ci biir nekk mu ne dafay am entretien gis naa ko góor jigéen xam naa ay góor jigéen yu ko jege xam naa loolu man billaahi wallaahi tallaahi lazim jullit laa waye xawma luma gisuguma luma wor beug na xam beug na xam lan motax beug na xam lan motax gor jigen ni di jégué président de la république gor jigen ni dañ koy jégué lu bari xawma nak lan motax toujours président de la république mi ngi am ay entretien mi ngi dey ay gor jigen ci bir nop ñu koy dey ci ay nopam peut-être il ne connaît pas je ne sais pas peut-être aussi il connaît mais il travaille beaucoup avec les PD ça lui fait plaisir loolu moom billahi wallahi tallahi wallahi wallahi billahi wallahi tallahi man maa ko seede bu ma dee man rek maay nekk sama bàmmeel man bu ma dee man rek maay dugg sama bàmmeel du ma ci ànd ak kenn kenn ci yéen du ma ci gunge billahi wallahi président Macky Sall góor jigéen yi ko war wari bari na yi ko wër bari nañu comme li ma leen wax nag gisuma turam ci list bi parce qu'il se sent confortable envers lui Ou le président de la république il va de tous les deux côtés je ne suis pas sûr mais il y a un problème et maintenant ku xam réponse ce problème mais entre temps nous avons ci affaire Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna euh, bu rabbi Euh, na sénégalais yi xam ne euh, d'accord kumba amul ndey la mais kumba amul ndey la bu bari ay soppe te man ci soppe ji Mari Sagna yi laa bokk ak suñu yeneen frer yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi euh, te président de la république bu yeboo mu ne bala nga yàlla ñaf ok Aliou Touré gaay jéggal leen ma ma bloqué dof yi yeen say xam nga da ngay am ay doomeeraam yo xamné ne donc lolu motax dama leen di bloqué xam nga man lima fi wax leer na voilà néna naa leen wóoruma bosam wóoraguma guma. xam na né amna na lu ci louche Guy Marius euh dama bëgg Macky Sall xamné ne mu duggal ko ci bir bopam mu né depuis quand Makka Youssou Ndour ah Youssou Ndour de dem na gis nañ ko mak xawma nak nu mu xaw ma euh, parce que amoon na ay temps may gis ay nit di dugal ñu ne màkk léegi euh, légaliser nañu bu de nuit yi xëy na dafa bëgg tëgg tëgg soirée on ne sait jamais moi je ne sais pas je ne suis pas sûr parce que lii may wax nii yëpp dara wóoruma ci gis naa daal Youssou Ndour ak Macky sàll ak yeneen nit yu leen entourage entouré ñu ne ñu ngi dem dañoo dem màkk loolu jaaxal na ma lool jaaxal ma jaaxal na ma lool bu dee nag looloo am xëy na bu fi ñëwee Euh, xëy na bu ko yàlla indeeg jàmm ak salaam dana bàyyi way naan góor dafa war a gaaw dafa war a tàlli parce que xam naa man li ko ci dugal dafa bëgg fi mu ne nii xam naa jupe yi ñoo ko manqué dafa màggat dafa jëm mag fi mu ne ndax euh, fi mu ne xam naa xale yu jigéen yi tamit euh, bëgg nañu xaalis waaye am na aussi lu ñu bëgg mu àndal mën na am foo xam ne buñ fa tolloo ak yow dootuñu bëggati dara ci sa xaalis sax ci nax la rek la ñuy dëkk donc euh, Youssou Ndour nee na góor dafa war a gaaw wala mu luxus xëy na bu jógee màkk ak jàmm ak salaam dana bàyyi gaaw wala mu bàyyi luxus benn dina ci am waaye buñ jógee ci loolu ñu dellu siwaat rek ci affaire Guy Marius Sagna jii Guy bi doon lu doy waar euh, mu doon loo xam ne sénégalais yi dañ koy naqarlu euh, parce que tey nga toll ci dix ci vingt et unième siècle nga war a yaakaar ne société bu développé waratul ciblé doomu aadama parce que ay xalaat personnelam like Ousmane Tounkara man naa am ay xalaatu personnelam Ousmane Tounkara man naa am ay xalaatam personnel keneen man na koo am loolu warul doon raison pour dem kaso Ousmane Tounkara nag si il viole la loi il doit aller en prison comme tous les Sénégalais wala bépp doomu aadama bu nekk ci àdduna bi bu violer loi nation boobu mu nekk dafa war a dem ci kaso ci nation boobu comme tey Amérique bii ma ne bu ma fi violer loi dañ ma war a jàpp ci kaso Amérique yi atte ma yoon teg ci kam ci sama kaw li nga xam ne moom mooy euh, loolu la yoon euh, dogal bu boobaa ma def li nga xam ne moom mooy sama responsabilité ma tëdd fa nag comme góor bu ma paree def sama suuf si ma ñibbi sama kër waaye gis nañu ne mbir mi ci Barthélemy Diaz la ko Macky Sall commencé woon euh, Barthélemy Diaz doon un un un grand homme politique au Sénégal qui est quelqu'un de très respecté maanaam muy def liggéeyam respecté dëkkam bëgg réewam amul ki dara loo xam ne daf ko manqué respect kenn ñu jàpp ko dugal ko ci biir kaso bi euh, euh, ne ko flagrant délit tëj ko six mois euh, ñu pare ci Barthélemy Diaz ñu def ko ci Assane Diouf Assane Diouf nag dañ koo tëj ci kaso bi pamti pamte ko xaar ko ba heure bu leen neexee un an deux ans après un an et demi après sax laa bëgg wax ñu ne ñu jugé ko wala liberté provisoire ñu ne ñu bàyyi ko mu génn ñu pare si Assane Diouf ñu dem ci euh, journaliste bi aadama Gueye boobu ministre de la ministre de la de de de de de ministre des Béthio ministre des Béthio des femmes doomu xaram boobu du ma ko tuddee ministre de la justice parce que ñooñu ay sàcc ak ay duulkat rek la ñu kooku moo génn mu ne moom dafa doon yar aadama Gueye un ministre une personne qui est sur la tête d'une institution mu ne moom nit ki dafa génn wax président de la république lu ko lu mu warul mu ne loolu moo tax mu jàpp ko donc ministre de Béthio doomi xaraam nga yàgg président boo demee nga ne président am na ku la ne doomu xaram te nee na mënuma ci dara voilà donc ministre de Béthio mënoo ci saram daan ndax doomu xaram nga yàgg sa président yéen a yem ñaari doom yaram mën nañoo jiitante yow yaa jiite beneen doom yaram bi benn doom yaram bi jiite la yéen ñaar kenn mënulul sa morom saram dem ay ay doomu xaram ngeen voilà ministre de la de de jàpp doomu jàmbur boobu Adama Gaye mu tëj ko ci biir kaso bi mu ne Adama Gaye dafa wax président de la république lu ko neexul donc moom moo ko jàpp pour yar ko ah xanaa nag gis nañ fi ba Ngom bu génn ci bëccëgu ndar kàmm mu ne moom dem na fenn jël na xaalis dugal na ko ci biir poosam jël naa xaalis jël naa moom it jël na na wax ku nekk xam nañu ne jël na voilà ku nekk jël na dégg ngeen ko fi boo leen amee video bi yónnee waatal leen ma ko fii ma ma ma tourné ko gars yi dégg ko Farba Ngom a fi génn ba cëgu ndar kàmm mu ne jël naa jël na voilà jël naa man jël naa moom jël na Farba Ngom a wax lii àdduna bi yëpp dégg ko ngeen dégg lépp adduna bi di ko dégg Farba Ngom kenn jàpp ko kenn woowu ko procureur laaju ko question ñu ñëw lu tollu BBC BBC World News BBC génn ñu def seen investissement ah, I mean seen ay investigation pendant des mois ñu génnee résultat ñu ne rakku président de la république takk na rip ci six ci six mille milliards rakku président de la république génne alxuraan teg euh, ne wala maa ngi teg alxuraan bi di ci waat sama diggante ak yàlla jëluma dërëm déedéet mais mais mi ngi dëkk ci château ñun xam nañ ko c'est un journaliste c'est quelqu'un qui a fait le journalisme à l'école té musul bind dara ben article bo xam doomu adama man na ci tek loxom ne article bi Aliou Sall bind vraiment tay macha allah amul dara lu mu bind ci aduna nit gis ko mom xamna journalisme li muy def xamna né wa BBC lolu ñu génnee wax ci mom lépp firnde la Ken japp ko tej ko kaso kenn jàppul sawaay duggal ko ci biir kaso Ben yon nak la wax de kenn jàpp ko dugal ko ci biir kaso léegi bi ñu paree ci loolu ñu ne waaw ne ñu ne déet ne waay Mamour quatre-vingt-quatorze mille Diallo dem ànd ci ko ak euh, suñu waa ji euh, euh, Tahirou Sarr monsieur Sarr monsieur Sarr ak Mamour jàllo def fa seeni laxas laqar ci génne quatre-vingt-quatorze milliards ci keesu Sénégal ben doomu adama bu am fit benen Usman, ndax Ousmane yi moom allah ñom li tax moy euh, li ngeen comprendreul si ñun ñun dafa am ku ñu tud ku ñu tuddee ñun Ousmane Ibn Affan la ñu tuddee. léegi ku bëgg xam vraiment luy histoire Ousmane yi da ngay dem nga delu retourne dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi Wasallam, legi di nga comprendre quelles sont ces personnes. moom rek lay yonent yàlla sallallahu alayhi wa waxuma la may ko benn jabar waaye daf ko may ñaari jabar daf ko may doom kooku génnaat dina mu mayaat ko doom kooku rek moo am loolu Ousmane Ibnu Affan rek ko am muy nit ku set muy nit ku jub muy nit ku tàlli koo xam ne bu yonent bi ne mayee leen mu génnee comme ni ngeen gisee ñu koy defee ci internet bi fu ñu waxee cotiser ñun ñu cotiser c'est pas que on a des milliards partout mais dañu gëm yàlla ñun dañu gëm ne yàlla lim la dénk pour yow ak doomu aadama yi la ngeen partage donc fu ñu wootee cotisation ñu def ko fu ñu gisee lu dul dëgg ñu génnee ko teg ko sur la table fu ñu gisee kuy tooñ ñu ne la ah déet fu ñu gisee ay doomu aadama yu ñuy néewal doole ñu ñëw taxaw donc Ousmane bu baax boobu génn def euh, lu jéggi dayoo loolu vraiment euh, génneel ñu résultat yu yu yu kéemaane yu mel noonu ñëw nañu waa ji de sàcc na seen quatorze seen quatre-vingt-quatorze milliards lan la ñu def ñu ne xaar leen ñu accuser ko ne moom moo waroon am ci quatre-vingt-quatorze milliards yi moom daf ci amoon walla moom moo njëkkoon bëgg def deal bi léegi bi deal bi yàqoo ci la ñu boole mais attendez mais attends si je suis normal dans la tête moom moo doon def dilek mom deful diil mom mo moo bok ak mais nous ce qu'on veut savoir si les 94 milliards sont pris ou pas ñu loolu lañu xam donc 94 milliards yi genn na xam nañ ne genn na mais nañu japp kiko genné nous ñun suñu yoon nekkul ci kan moko mais xam nga ñaata sama chaque jour chaque jour que Dieu fait quand je sors chez moi je veux tuer Makissal chaque jour je veux couper sa tête et jeter dans la poubelle mais est-ce que je l'ai fait mais je n'ai pas coupé sa tête est-ce que je peux être emprisonné pour dans mon cœur que voilà je voulais la mort de Makissal mais maintenant il est mort mais attendez ne vous foutez pas de la République Mamour Diallo ñun dañu ne ndax quatre-vingt-quatorze milliards yi génn na waaw génn na quatre-vingt-quatorze milliards yi kan moo ko génnee Mamour Diallo moo ko génnee ñun suñu yoon nekkul ci bu den Ousmane Ndiaye Ousmane Sonko Ousmane Badiane Idrissa Seck moo ko doon waaj a jël waaye jëlu ko moo tax mu boole Mamour Diallo mais quelle foutaise ma ñëw léegi ci supermarché ma fekk oto bu gaare caabee ngi ci biir oto baa ngi tàkk sama xel ne ma ah xaaral ma dugg ci oto bi dem mais ha ah, ma ne non non non c'est c'est une mauvaise idée loolu duma ko def oto jàmbur la d'accord ça c'est on est d'accord man ma dem beneen Ablaye Ndiaye jóge fële dugg ci oto bi sàcc ko nga defee ne police day ñëw ne ma yow mi rëmb oto bi di takk da nga ko doon waaj a sàcc donc yow lay jàpp déedéet police Ablaye Ndiaye la amal problème ki sàcc oto bi donc les Sénégalais notre problème c'est le grand voleur Mamour Diallo mais maintenant Mamour Diallo gars assemblée nationale c'est le temps du blanchissement C'est l'année du blanchissement de Mamour Diallo assemblée nationale parce que comme nous on est incompétents, on va l'amener à l'Assemblée nationale nous tous on va dire que voilà il n'a pas volé voilà comme Ousmane Sonko voulait voler il n'a pas pu voler c'est pourquoi il a dénoncé Mamour Diallo mais attends Ousmane Sonko voulait voler il faut mais attendez on habite dans quelle république bu dee Ousmane Sonko moo bëggoon sàcc d'accord man tey man comme ni ma waxee affaire oto bi xaaral ma yeggali ko man jëluma oto bi gis naa nit otoom takk mais jëluma ko j'ai pas pris mais dans ma tête peut-être ci sama xalaat maa ngi don xalaat ah auto bi de faire, na ma jël ko dawal dem mané ne yii mënuma ko def loolu alalu jambour mais maintenant je suis arrêté là quelqu'un d'autre vient il vole j'appelle la police attention police amna na ku sàcc oto bu don tak fi légui police ñew ne ma waaw yow tamit gis nga ko dama la wara japp mais attends mais Ousmane Sonko il doit être récompensé si il voulait faire dans sa tête doomu adama matul bu Ousmane Sonko dafa don xalaat ci bir ne man de war def délit mais mu a ci bir bopam conscience am jox ko ne ko c'est pas normal mënuma ko def du yëfu nit ku mais Vous moy nit xam nga yalla yalla mi sak doomu xam nga yalla nu muy fonctionner yalla dafa jël ay bakaram tek jël ay tiyabam tek mu ne doomu adama man maa la defar sa xalaat day def nii doomu ton pensée il fait comme ça mu ne da ngay ñëw nga toog di xalaat ne tey day dinaa tëdd jabaru jàmbur bi eh tey dinaa rey nit tey dinaa sàcc xaalis tey dinaa dawal oto bu bees tey dinaa jaay drogue tey dinaa tu dinaa naan sàngara xam nga doomu aadama loolu yëpp xalaat nga ko sa biir bopp yàlla du la bindal benn bàkkaar yàlla mi ngi toog rek teg kayam di xaar gis nga yow même doomu aadama bi nga changé avis tu as changé d'avis defuloo ci dara lu bon loolu yëpp defuloo ko alhamdulilahi rabbil alamin xam nga yalla dalay récompenser ci li nga deful lu bon xalaat nga ko mais defuloo ko jéete récompense gis nga lu bon lolou boko ko nga bañ ko def nga nga def lu bax yalla il te récompense 70 fois c'est ça que Dieu fait donc dans une république normale Ousmane Sonko il est décoré comme héros national dañuy ne ah vraiment on te récompense monsieur Sonko pour avoir l'idée de vouloir faire quelque chose de mauvais et tu ne l'as pas fait. Mais l'islam, lolu la L'islam a dit ça. Dieu nous a créés et il a fait des péchés et il a fait des bénédictions. sans khalate de lu bon do am bakar. So le bon yalla bindal la ben bakar. So le bon lolu boko balouate ak yalla yalla dindi bakar bi. Bindal la tiaba Légui même yalla bobu Y'en ngeen ne wax y'en da ngeen koy tek yen xam nga li ngeen di def da ngeen di une personne a accusé un voleur qu'est-ce que vous allez faire non non non on va attaquer la personne qui a attaqué c'est ce qui arrive dit Marie Sagna Guy n'est pas un délinquant national Dit Marisanya est un héros national une personne qui voit du mal dans son pays et il se bat contre le mal Il gis lu bon ah de ci société nañ ko xeex ji Mari Sagna doomu sénégalais yi nañu ñu dem ñaxtu France baxul ci Sénégal France dégage est-ce que xam ngeen ne France mom mo yóbbante Macky Sall pour mu japp ji Mari Sagna dugal ko ci kasso bi comme niñ ko defee won Imam Ndaw ak yenen doomu adama Guy Marius c'est un prisonnier français c'est pas un prisonnier du Sénégal il est en prison pour les intérêts pour défendre les intérêts français c'est pourquoi Di Marisanya il est en prison. Di Marisanya n'est pas en prison. Di Marisanya n'est pas en prison parce qu'il a fait du mal. Dédette. Di Marisanya est en prison pour défendre l'intérêt des Français au Sénégal. Parce que c'est quelqu'un qui dit France dégage. Ça, c'est un grand mot pour les Français. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils vont mettre Di Marisanya en prison pour le faire souffrir. Pourquoi Parce qu'ils vont protéger les intérêts de la France. il faut ngeen xam ne euh, man ngeen comme ni ma ko waxee rek kumba amul ndey waye bari na ay soppe Guy Marius Sagna de bariwul amul ndey waye bari na ay soppe te tànk mi ngi ci bir kasso bi wallahi billahi dinañu genn ñu xeex ak yéen tànk Guy Marius Sagna mi ngi ci kasso bi yéen di ngeen dégg lu len nakari sa bu ngeen yeewoo dee leen seetaan tunkara di ngeen dégg lu leen naqari every day di ngeen dégg loo xam ne dina nangamtaan ndey seen xol te doo leen ci man saram daan loolu man maa leen ko wax saa yu leen de neexee laa leen wax de yeewu leen di déglu chaque jour vous allez entendre quelque chose qui va faire péter vos cœurs chaque jour every day dinaa génn ma dal seen kaw chaque jour que Dieu fait dinaa génn ma dal seen kaw loolu bu leen leeree jël len ko ngeen bind ko tak ko seen téere yi déglu sénégalais dinañu dal sen kaw Macky Sall on va échouer 99 fois mais on va réussir une fois loolu calcul mental la calcul mental légui défal sa calcul on va on va échouer 99 fois mais on va réussir une seule fois légui yow jëlal nga def sa calcul bi inshallah euh di nga comprendre légui di nga comprendre des ce calcul. On va, on va, nous, les Sénégalais, on va continuer à marcher. On sera 5, on sera 10, on sera 15, on sera 1000, on sera 2000, on sera 3000. Il faut compter. On va échouer 99 000 fois, mais Wallahi on va réussir une seule fois. On nous, réussir. Une seule fois, on va réussir je serai avec eux pour jubiler merci encore les amis voilà nous avons un petit thème numéro 2. Nous avons un dialogue politique ou wala mafia politique euh, xam nga bu ñu dialogue politique le président de la république comme ni ma leen il a volé les élections des sénégalais en flagrant délit euh, les sénégalais l'avaient dit qu'on ne veut pas de il nous a forcé à Ngouille Ndiaye on avait dit qu'on ne voulait pas du fichier électoral. Il nous a forcé le fichier électoral. On avait dit qu'on ne voulait pas du parrainage. Il nous a forcé le parrainage. Euh, mes amis, je vous donne seulement euh, quelques preuves. Bolen Ham élection Sénégal validité. Madi Karim Wad, Khalifa Sall. Il y à yooyu ok yaa Il y a Karim Wad, il Khalifa Sall Khalifa Sal. leen jëlee Issa aussi du PUR Jalen Issa Sall du PUR donc 2 plus 2 contre 2. Madi Kenyan contre euh, Karim Wad, PDS kan moo gagné Madi Kenyan, il a eu des parrainages Madi a eu parrainage maintenant. Qui fichier électoral à Aly si vision ministre ministre incompétent ministre incompétent de l'intérieur à nous a présenté un fichier électoral qui Euh, là où Madické Niang a battu Karim Wade Madické Niang ci boppam xam na ne carrière politique am Madické Niang siiw bi mu am siiw bi mu gën a am ci àdduna bi quatre-vingt-dix-neuf lay yem nineteen ninety-nine amin deux mille dix-neuf élection deux mille dix-neuf présidentielle Madické Niang ci boobu lay gëjee siiw ci côté téléphone c'est ça Madické Niang xam nga kañ lay gëj a siiw Moi, en 2019, suis lay gëj ci ay élection ndax 2019, la Macky Sall nit ko ne am 2000 voix amna 60000 voix ci manam, ci ay ay ay parrainages. parrainage madi kenya fu muy parrainage madi fan la parrainage wax len mako sénégalais ni Macky Sall gagné na ay élection madi fan la parrainage Karim PDS PDS foo ci aduna bi même Amérique fi bo woté ndaje PDS mo fay ëppale nit bo woté fi ndaje Amérique fo woté ci aduna bi PDS mo fay ëppale légui dans notre temps Ousmane Sonko mi ngi Ousmane Sonko mi ngi avancé Ousmane Sonko fi mu ne diaspora bi mo fi ëpp doolé fépp ci diaspora bi mais avant Ousmane Sonko il y avait toujours le PDS. même avec Ousmane Sonko il y a toujours le PDS légui Karim Wade naka lay mën a parrainage mais euh, euh, euh, c'est à vous de faire votre calcul nañu de Khalifa Sall le maire de Dakar la personne la plus populaire de Dakar Lolo, xawma Sénégal mais Dakar Khalifa Sall mo fa populaire Khalifa Sall c'est la personne la plus populaire de Dakar le même Khalifa Sall le maire de Dakar personne populaire polie personne bien respectée au Sénégal Khalifa Sall manul am parrainage doy mais Issa Sall mu pur mo xamné professeur Issa Sall mo xamné tay grâce à la dialogue national lui aussi il est devenu un héros national mais mom ci bopam xamna né mo Issa Sall du démat élection am fa 2% mom xamna lool Issa Sall il a eu aussi mon tamit affaire am matna ñu né Khalifa Sall affaire am matul xam nga si on dit euh, bu dé dañuy waxanté deug nañu nañu euh, euh il faut que sénégalais sénégalais Ne nañu pas tiaxan ñu dox réalité euh, dialogue national bi Macky Sall c'est un dialogue de médiocrité c'est un dialogue de banditisme c'est un dialogue où Macky Sall il veut vraiment euh, jouer avec euh, la conscience des Sénégalais encore Macky Sall il veut encore manquer de respect les Sénégalais comme il le faisait toujours euh, jéggal leen ma touti baal ma allo allo madame wa coach bi ñewna de entraîneur bi neel xalé ñu dem ci gym bi merci voilà gars yi jéggal ma ngén baal ma voilà ma donc euh, Macky Sall wota dialogue national euh, dama len di wax dara doomu sénégalais lay waxal man waxuma sax ak ñi nga xamné ñom ñoo dem ci dialogue national mais je parle avec les fils dignes du Sénégal il faut savoir que mon non attention Karim matal na de ak Khalifa Sall aussi waaw mais euh, man lol la wax moi ce que je parle euh, man kay xamna li may wax man neewu ma la Karim ak Khalifa Sall matle wuñu man xamna né matlé matle nañu mais le problème en est que ñun xamnañ né dafa am banditisme bu ci laxasu boo xam ne ñemewul jàkkaarloo ak ño xamné dinañu xeex ak mom te dinañ ko dal. donc mu choisir ay mbeur yo xamné sen ngem bi sax dëgërul autour de leur euh, rein manam ñun xam nañ ne Madi Kenya mënul bëre Madi Kenya man rek buma démé ak mom élection je vais le gagner à 180 man ak Macky Sall rek à aux élections je suis confident que I will beat him ten times bala muy am ben vote lolu xamna ko tuddeewu nak li politique man duma politique comme ni ma leen ko waxé talaguma leen yeggaguma ci yooyu mais li am li am ba leer li am ba euh, wër té doomu sénégalais yépp xam ko moy euh, nañu xam rek que Madické Niang ñun ñep xam nañ ne matléwul ay parrainage té xam nañ ne Macky Sall daf ko indi tout simplement pour saboter li nga xam constitution sénégalaise te saboter li nga xam ne te ma wax constitution bu baax am importance ci aduna bi respect au niveau mondial gis nga bo une constitution bu dëgër bo nekkee dëkk bu démocrate dëkk boo xam ne sa démocratie dafa am doole mondialement tu es respecté boo demee daje ak sa ay co maanaam ay ay ay co boo demee daje ak ay yeneen doomu aadama ci àdduna bi ngeen di waxtaan li ñuy njëkk xool mooy sa stabilité dëkk dañuy ne ñii seen dëkk bi dëkk bu baax la mais mi ngi mel ni sa kër mi ngi mel ni ngay dem tey sa këru voisin bis bu ne jëkkër jaa ngi dóor jabar ji ñu ngi sàcc doom yaa ngi sàcc ñu ngi dem police ñu ngi def lii ñu ngi leen di jàpp yow est-ce que kër googu di nga fa dem dënkaane sa ay or comme ni ngeen koy defee Sénégal doo fa dënkaane ci sa ay or mais boo demee tey kër voisin bi nga xam ne y a jamais de problème fu ñu sérieux fa la ñu nekk ñëpp ci dëkk bi fu lu ñu wax rek dañuy ne famille bi moo sérieux mais boo amee koppar yooyu dënkaane ci googu ngay dem wala or booy dënkaane fa ngay dem donc ce qui veut dire que Sénégal ñun dem nañu amatuñu crédibilité mondialement on n'a plus de crédibilité mondialement keroog rek ndeysaan bi may Dakar seen ndey doomu xaraam yi bi ma leen di saaga ne leen jàpp leen leen eh, kër woyu yi yëpp ngeen xam noo leen leen war def ay nit di ma woo ñu ne ma yii grand li nga wax noonu dama doon reetaan parce que xam nga lu tax may reetaan ñoom gëmuñu ne ginaar sax kenn du ko jox Sénégal guinar laa la wax waxuma la doomu aadama doomu aadama c'est trop doomu aadama moom bu yeboo man ngaa rey fukki nit Sénégal boo dawee dem Gambie rek waa Gambie duñ la joxaat waa Sénégal loolu moom na leen leer Sénégal benn doomu aadama du jël ay nitam di leen jox parce que justice bi xam nañ ne dafa foxoj dafa dafa dafa justice bi dafa paralysé dafa lafañ justice su Sénégal dafa lafañ parce que justice su Sénégal su lafañul naka ngay jàppee nit ku mel ni jiimari Marius Sagna un patrimoine national nga koy dugal ci kaso nga bàyyi ay nit yu mel ni Mamour Diallo ay nit yu mel ni euh, sa criminel Aly Ngouille Ndiaye ay nit yu mel ni euh, euh, maanaam doomu xaram bi Alioune Sall ak ñeneen ak ñeneen ñuy dox ci tali Sénégal bi ay Guy Marius di nekk ci kaso mais waxuma la justice bu lafañ mais justice Sénégal dafa paralysé nous notre justice n'est pas lafañ mais dafa paralysé dialogue national bi daal en tout cas bu ma leen mënee wax lu leer ngeen dégg ko Macky Sall waxu ci luy jubbanti fichier électoral ba nga xam ne ay élection dina jaar yoon waxu ci loo xam ne day dindi Alioune euh, euh, Aly Ngouille Ndiaye ci pouvoir am déedéet mais lim ci nekk di wax au contraire ma ne au contraire li Macky Sall waroon wax sénégalais yi di ko dégg li mu waroon wax sénégalais yi di ko dégg li war a njëkk am bu fekkee dafa wara a jubbanti Sénégal li mu war def dafa wara a dàq ñi nga xam déjà ñom la sénégalais respecté wul bu délu jub la bëgg mais mom jubul anyway Macky Sall moom kuy xaar ku ku ku la jubbanti bul dem ci Macky Sall Macky Sall bu dé dafa normal mu ne dafa bëgg a Sénégal Ali Nguy Ndiaye la wara a dakk il doit savoir que son ministre de l'intérieur est incompétent Macky Sall war naa xam lool mais déedéet. Il ne renvoie pas. Il ne renvoie pas à Ndiaye. Il ne change pas le fichier électoral. Et qu'est-ce qu'il fait Nous pousse l'élection locale, nous sourit pour temps, pour nous fabriquer une manufacture, pour nous donner cette élection. une élection présidentielle, si nous faire un fichier, le fichier c'est autour des présidents seulement. 6 candidats, 4 ou 5. Donc, c'est facile. Maintenant, on parle des députés de 45 départements. Ah. On a 40 régions, 14 euh, régions, 45 départements. Donc, je pense que Macky Sall, il est dans des situations très compliquées aujourd'hui au Sénégal. Parce que, mingi tok xamna dina ne bu ma fichier électoral coûter au moins 300-400 milliards de francs CFA pour mu élection locale loolu dina compliqué trop petit moom li ñu mën a def rek forcing mooy maanaam xam ne ñàkk nañ ko ñu ñoo gagné par force mën nañu loolu bu fekkee testé nañu doomu sénégalais yi ñu comme nous ngi koy testé toujours muy jàll pour faire sortir de cette mafia. well euh, on va en parler ta ta tafastar star, guy. Ouais, on va on va en parler on va en parler bu fekkee am nga sama. kii bi mën nga koo jël beneen cas bi ma ñëw rek pour wax leen ci dialogue national bi ñu ngi indiwaat beneen kàddu yéen a ngi dégg euh, coowum écho ak coowum français CFA coowum éco li ngeen war a xam déjà il faut ngeen xam ne CD CEDEAO euh, ñoo créé euh, seen monnaie bopp maanaam lii nga xam ne moom moo doon écho ñoom ñoo ko créé mais président France bandi Macron dañoo sàcc idée bi nga xam ne maanaam euh, réew Afrique yi ñoom ñoo ko génnee ñoom ñu jël caay-caay boobu ñu teg ko fi nga xam ne moom moo nekk tey ci ndoddu Alassane Ouattara te Alassane Ouattara àndu ci ak benn président waa CEDEAO yëpp ñoo ñoo rejeté loolu nga xam ne dafa doon nangu parce que bëgguñu France jël benn monnaie boo xam ne dafa koy gérer ci diggante africain yi France bu baaxoon yaakaaru leen ne africain yëpp nangu ñu ànd ak ñoom. yaakaaru leen ko mais benn dëkku Afrique nanguwul pour France gérer monnaie boobu lu dul fi mu guddi yi ñu toll Alassane Ouattara ak Macky Sall rek ñoom ñooy xeex lu ñu man pour jéem ko forcer seen ay population mais loolu moo leen di ñëw paralyser à vie doomu sénégalais yi seetaan leen rek doomu ivoirien yi tamit ngeen seetaan paralyser bi gën a mag bi nga xam ne moom mooy ñëw daaneel Macky Sall ak Alassane Ouattara mi ngi yel mi ngi yegg si dans quelque dans quelques jours if they tell them to open ok ok gaa yi jéggal leen ma de baal leen ma dafa am euh, video bu ma bëggee ngeen dégg et c'est important donc euh, tey tey am na sama beneen xarit aussi bu ma baaxee beneen vidéo xaw ma ndax boobu dinaa leen ko wonagum mais bëgg naa leen won bii bëgg naa ñëw ci bii ma won leen bii bii dama leen ko bëgg a won ngeen am ci tuuti kon suma vidéo bi waaye man laa defati sama vidéo bi bii laa bëgg ngeen dégg bii laa déglu ma bëgg ngeen dégg ko man sama vidéo bi baal ma de baal ma une seconde dama bëgg ngeen déglu lii baal leen ma de yi dama am benn vidéo xam fan laa dugal vidéo bi vidéo yi nag yenn saa xam nga da maa maa ngi jëm mag ngeen jég ngeen jéggal ngeen jéggal nopp yi nag mu ne merci beaucoup sëñ Cheikh grand Cheikh grand Cheikh waaw ñu ngi leen di ziar baax a baax euh, bii en attendant ngeen déglu vidéo bii ma wut beneen bële bi daf ma xaw a jaaxal tuuti je ne sais pas what is it about euh, yobante la rek te yobante bor la voilà bi la dégg bi la gis tay bi dañ ma yónnee vidéo bi euh, ça me fait un peu mal je comprends pas le concept mais bii laa déglu tey comprends pas. Uh, so, now... Soxna Fatim Mbacké doomu Serigne Sidi Mbacké Khalif General, di Khalif General Serigne Abdul Ahad Mbacké di dom ci Serigne Touba donc Serigne Soxna Fatim Mbacké moo nekk nii nekk Dubaay di noos nee na maamam moo julli won ci géej kon moom am tay pour di bége di noos ànd ak Wally Seck dem ca Dubaay di noos defar ba bu baax ndax maama mu julli woon ci géej moom soxna Faati Mbàkke mi sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne mooy xalif sañ Abdul Ahad Mbàkke mi sëriñ Touba jur mooy béggee nii na taalibe yi dee waaw na Mbàkke Mbàkke yeeg ñi sant si ñu di dund lii nag mooy li nga xam ne mooy li am waaye nag ñoom ñëpp a nañu dee.

Nous comme toujours c'est un monde du social media euh, média social bi nous euh, y a des vidéos comme je vous leen Il y a beaucoup de vidéos qu'on va commencer à publier dans ces jours-ci de belles maisons toutes les belles maisons des ministres du Sénégal les grands voleurs ne këru sàcc les euh, këru band yu magi yi dinañ ko publier ak këru euh, yi délinquant fiscal ak yenen ak yenen ak yenen on va publier les belles maisons pour doomu sénégalais yi ngeen xam li nga xam ne ñu ngi koy jaarale suñu kaw dodd on va faire tous on va faire tout tout tout yëpp dinañ ko génnee ñu def ko ci réseaux sociaux euh ñun euh, li ñu importe li ñu intéressé Euh, bien vrai que am na mbir yu bari yoo xam ne arrogance la te loo xam ne la aussi euh, ni ñu koy waxee maanaam euh, ñàkk xam la wala ñàkk ambal la bara mais dinañu def lépp loo xam ne dinañ ko man incha allahu rabbi ba nga xam ne saay-saay yi moom bu leen bu ñu yàlla dimbalee incha allah dootuñu leen suturaalu maanaam képp bu leen dara nax nag parce que jullit saa buy yàlla nang saa bu la nit di ñaanal dañ ne ne yàlla na la yàlla sàng sutura aussi yàlla na yàlla may gudd fan may la alal may la sutura may la wér ak wérle dañ lay ñaan yàlla suturaal la mais ñun dootuñu suturaal délinquant sàcc yu mag yi nekk Sénégal dootuñu leen suturaal incha allahu rabbi dinañu génnee lépp loo xam ne mooy seen ñaawteef lépp loo xam ne mooy seen incompétence lépp loo xam ne moom mooy seen tooñ lepp lo xam ne ñu ngi koy togné lepp lo xam ñu ngi togn doomu sénégalais ñun dinañ ko génné ñu teg ko sur la table sénégalais yi gis ko mondialement sénégalais nak ñom ñoy ñooy déterminer li ñuy xeex ak lu ñu dul xeex mënumaa woñaar loxo kenn ne ko da ngay dem xeex par la force déedéet té duma xass kenn aussi ci ñak mëna génn parce que pour moi je me dis que Sénégal li leen li leen di metti bis bu leen naqaree di ngeen génn li len di metti li len di metti bis bu len nakare bu sortiire li len di metti li len di metti li nga xamne mom mo len di metti sa bu len nakare di ngeen génn ma ngi wax ak sama ay xarit temps yi ñu ne ma dama japp sama loxo ñu ne ma tunkara danga yi da nga def li da nga def la le man len ah du lolu comprendre len ma dama len gisul ci marché rek tay yi Tunkara il a pris une autre voie dañu bëgg ñu gis leen ngeen genn nakarlu Buma gisé doomu adama bu genn di nakarlu di xex muy metti koku buma woyé néma dama sonn dama soxla ndimbal dina ko comprendre mais nit mënuma wo néma sama maa ngi hôpital sama mama ngi hôpital nit a ngi waaj a dimbali ñu après nga teud sa bir kër di nelaw bi nit ñi di genn di ñaxtu man nit ñu mel nonu pour man soxlawuñu ndimbal parce que sonn ñi sonn dinañu génn ci biti dinañu génn dem xeex ñi sonn nag di génn di dem xeex ñooñu bu ñu soxlaa ndimbal incha allahu bi dinañ leen dimbali mais bu dul loolu ah ñi toog seen biir kër yi moom yaakaar ne ndimbal tunkara dina doxantuwaat seen buntu kër da ngeen di juum jarul ngay perte sa temps di toog ci chaise bi bu la yàlla jàppalewul di fa kole wala nga màggat fa waaye doo ma dégg li leer ba leer mooy dañu woo doomu sénégalais yi pour ngeen génn ci mbedd bi ngeen dem jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen noot sàcc seen alal sonal leen bis boo leen ko defee man de di ngeen ma dégg te damay avertir sama mbokk yi nekk ci diaspora bi bàyyi leen copain yi copines yi xarit yi ak n'importe qui yi ngeen di yónnee xaalis baaxul c'est pas normal c'est pas normal bàyyi leen ko il faut l'arrêter voilà du ma ne kenn bul dundal sa njaboot duma wax loolu parce Euh, bu ma leen newoon tey man dinaa toog du ma dimbali sama yaay du ma ti sama yaay xaalis damay fen sama yaay bu ma wooyee trois heures du matin ma dama soxla dinaa ko yónnee sama yaay bu ma wooyee six heures du ma damaa soxla dinaa ko yónnee sama yaay lu ma wax dinaa ko def kanta nag euh, kenn du ma ko chantage comme par exemple yi may gis gouvernement yi di def ay menace de mort ay dagg bopp man sama yaay bi muy dund yàlla moo ko fi indi mu dund ku yaakaar ne saaga ndey tunkara wala sa xas ko wala wax ko lu dul dëgg mooy tax sa xeex bi wàññeeku da ngay tooñ sa bopp you you are lost you are totally fucked up in the parce que man li ma ñëw nii je suis déterminé à le faire man naa cee ñàkk ay doom man naa cee ñàkk ndey man naa cee ñàkk lépp dinaa ko continuer xeex bii boo leen daggoon sama bopp doom yi sànni ci géej gi sax dinaa dinaa continuer xeex boo leen jàppoon sama yaay suba ngeen yóbbu ko euh, fële rëbës boo leen ci pare euh, ren di walla def lu leen neex loolu du ma den génnee ci xeex bi loolu ku mu leer rek mu dugg sa biir bopp benn yaay boobu rek laa am te moom rek laa bëgg moom rek laa gëm sama biir xol mais yàlla moo ñu sàkk moom te moom yaay boobu gëm na ne man li may xeex yàllaa tax ma koy xeex te dinaa ko continuer xeex ba keroog bu yàlla jëlee sax bakkan bi loolu mënuma ci dara lolu bu yebo doomu adama yi ngeen def lolu seen xel comprendre len ne saraxule bi ngeen di waxal il est un peu sadique man dama xaw a sadique comprendre len il faut ngeen il faut nga jang histoire nit il faut nga dem nga jël sa temps nga xol histoire doomu adama bi ngay xeexal man bima commencé dugg ci Dakar ndeyu Macky Sall rek la am problème Macky Sall il a il est rempli de problèmes parce que moi je l'ai fait avec mes propres moyens avec mon propre temps avec à ma propre manière xam nga dafa am benn savant du savant sax euh, dafa am benn proverbe boo xam ne ça fait partie des proverbes que je préfère euh, dama koy gis nag lu bari mais proverbe bi li tax mu neex ma mooy dama ci gis sama bopp euh, proverbe bi ne dafa ne I start caring a long time ago when I figure out that people will think what they think anyway xam nga loolu lu mu miin mooy bayina khalat bayina conscient bayina khalat li nit di xalaat man bu nga parce que je sais que les gens vont toujours penser ce qu'ils pensent de toi so I don't give a fuck anymore I don't know if you know what that means in English mais l'on la it means that I don't give a flying f anymore donc ni djema a xawma menace lañ ko tuddee wala ni djema ou wala ni commentaire come on at least me euh, conserver sa sa énergie at least jéemal nga conserver ne Macky Sall il a des sérieux problèmes une fois dans notre vie Dieu a créé un Sénégalais buy Dakar ndeyou Macky Sall every day avec ses propres moyens soxlawu ko faalewul ndeem mënuma bloqué fenn lu ko neex na kat ndem bu ko neexee na jël Sénégal dougal ko ci tuunam ngi tok ci sama yoon ci I don't give a flying fuck t-shirt yi amna ci mille te dina ko partager parfois Dina ko partager partout doomu doomu sénégalais yi gis ko ce bandit c'est un dictateur et son frère c'est le voleur de l'année Mingi, li lay doxanto ci dëkk bi ah ndax neexul li lay doxanto de ci bir dëkk bi lay sol li Macky Sall dictateur Aliou Sall voleur de l'année Mingi ni. Li lay doxanto te dinañ ko def on le fera on va continuer à le faire dinañ ko continuer génne nous continuer faire guerre Macky Sall ko continuer faire, bah watat n'aime gagner ko Sénégal moom c'est ces ces ces voleurs de la République moom c'est ces grands voleurs et ces grands bandits on va les on va les attraper dinañ len japp. Inshallah allahu rabbi buñ len jappé dinañ dinañ len faj Té buñ len fajee dinañu wér. insha Allah rabbi te bu len fatte nak proverbe bi ma wax deng nga ñi bind ñi bind toujours bay len xel ci lool kuy bind bindu dof xamal ne du pour man parce que I stop fucking caring a long time ago tollu na man bi may dugg ci xex bi dama ñew ak mentalité bo xamne da ngeen di laaj ñima jégué ñu wax len toujours nak ma dégg ay doomu adama di wax ak ngeen waron xam sama wa famille niñ ma bëggé am loved billaahi wallaahi tallaahi man rek maa mës a dugg ci xeex bi amul benn doomu aadama ci sama famille bu ma woo critiqué ma ne ma bàyyil wala bul jàppal fii jaaral fële amul it never happen kanta am na ñu ci ànd ak Macky Sall am na ñu ci ànd ak ñeneen am na ñu ci ànd ak ñeneen mais benn doomu aadama ñemewu maa woo man man maa wax lii de tunkaraa koy wax benn nit bu yàlla sakk ñemewu maa woo di ma taaj di ma wax li nga xam ne loolu laa xalaat ci Sénégal it will never fucking happen amul amul fenn it never happens nit ñi may woo dañ may woo ak respect sama xalaat man maa ko moom ay have my own thoughts man sama xalaat bii maa ko moom kenn yoruma man maa yor sama bopp xam nga ban âge la loolu commencé presque à quinze ans presque à l'âge de quinze ans laa commencé yor sama bopp bu ma nee yor sama bopp mooy ànd ak ndey ak baay di liggéey nga yor ndey yor baay di liguey di joxe dépenses am responsabilité à 15 ans imaginez j'ai j'ai 46 ans pour 31 ans je suis indépendant ngén ce né tay lay dépendre ci Macky Sall ak satchu doomu xaram yi ko wër dédé motax da ngeen di gis rek doo leen doo leen da ngeen di dégg rek doo leen gis di ngeen gis journaliste sénégalais bu bind wala il a volé une voiture voilà il nangam wala il nangam doo gis benn affaire buñ lay indil dans son passé ne la kii ku am jom la kuy liggéey la ku am futur ku am passé la ku am futur la entrepreneur la he's intelligent and he's very well funded du benn doomu aadama bu ma jox saram ndeyam nag maa leen ko wax maa ngi nii ku ma jox dërëm wax ma ko ma delloo la cent amul fenn I never took in one penny from somebody te guerre bi ñuy def ak Macky Sall c'est pas moins cher j'en suis sûr que vous le savez c'est très cher on est dans des coûts des centaines de millions et on va continuer à les fournir ba ñu Dakar dem bu ñu jàppee Macky Sall ba yeew ko ba dugal ko ci bi ma toog première ligne de jugement keroog laay pare ci xeex bi dinaa tàggoo ak sénégalais yi en bon entendeur salut tant que loolu amul until that happen until that happen until it happen ñu japp Macky Sall dugal ko ci kasso bi di Duma faj du ma bi maa ngi jéggalu nak ci ñi déglu parce que yenn saa ñi lay déglu vraiment c'est des personnes innocentes qui prennent leur temps et qui veulent partager l'information vraiment ñuy ay nit ñu bax ma ngi leen di jéggalu wala Lamine Dieng yow yaa ngi laaj lo xam lu am solo la liste bi inshallah allahu rabbi dina génn les gor jigéen qui sont entourés Macky Sall les góor jigéen ki ki loolu laay génnee góor jigéen yi wër Macky Sall yëpp yu nekk ci gouvernement bi yëpp dinaa leen génne duma génnee nag góor jigéen yi nga xam ne par exemple amuñu benn njariñ ci ñun duma ma leen génne déedéet góor jigéen yi nga xam ne they very close to Macky Sall incha allahu rabbi ñooñu la ñuy jàpp incha allah dinañ leen jàpp benn par benn teg leen sur la table benn góor jigéen bu nekk dinañ ko génnee teg ko sur la table ak moykatu yàlla yi ak sàcc yi ak alal bi ñu sàcc yépp dinañ ko jël ñu teg ko ci table bi incha allah one at the time te duñ ci jég dellu ginnaaw benn yoon comme ni ma leen ko waxee on fera la guerre à Macky Sall Macky Sall dina xam ne sénégalais yi ñun ñoo moom Sénégal ndeyam moomu ko baayam moomu ko baayam surga la woon ndeyam jaaykatu gerte la woon bis bu ne mu fàttali leen ko saa yu ne fàttali leen. ne sama yaay jaaykatu gerte la woon sama papa gardien la woon déedéet du woon gardien yaa gardien yaa surga gardien mooy kii toog ci buntu kër di surveiller kër gi surga mooy ki nga xam ne dañ koy yónni fii yónni ko fële day dem ci tool yi day dem ci mbaam yi day dem ci fas yi day dem ci xar yi day dem fépp donc na leer baayu Macky Sall surga la woon ndeyam di jaaykatu gerte ndey gi bonul mënuma ne ndeyu Macky Sall dafa bon wala bayam dafa bon parce que dañu nek choisiruñu li ñu doon waaye jur nañu dom ju bon donc y a problème dans cette famille jur nañu dom ju domu kharam jo xam indi na sonal na Sénégalais domi mi doomam mi sonal nañu Sénégalais yi doomu Macky Sall ak ak ay doonu domu wajuru Macky Sall sonal nañu Sénégal parce que Aliou Sall lañu fi indi il est le voleur catégoriquement de l'année du Sénégal voleur le plus grand de l'histoire du Sénégal Alioune Sall bu doon gagner ay trophée t'es ci lu bon man na gagné fukki trophée yi nga xam ne moom moo gën a ay ci Sénégal OFNAC na ko ah OFNAC épinglé na Alioune Sall xam nga nit ñi lu bari ñun lan la nous, déglu ñun mbiru pétrole bi la ñuy déglu pétrole bi pétrole bi pétrole bi rek la ñuy déglu déedéet du pétrole bi rek OFNAC épinglé na Alioune Sall ci escroquerie et épinglé na Alioune sal bi mu yoree caisse de dépôt et de consignation épinglé nañ ko Alioune Sall nee naa leen am na foo hamne fa yeggé sax baaxul du foofu ma fa yegg damay tok rek mën tek mais sal je vous dis une chose man je le connais suma len né xamna ko rek xamna ko bama ma yàggee ay toxi donem ak yëfu doomeraamam ak ay xalé yu jigéen yi mu daan tëddee ay nit yu ko jege ay nit yoo xam ne bu daan indi ay ay ay businessman yi bu ñu daan jóge Alioune Sall je le connais c'est un bâtard de la République doomu xaram la de première catégorie doomu xaram la bu mag dans l'histoire du Sénégal le voleur le plus grande de l'histoire du Sénégal c'est Alioune Sall dans l'histoire du mën nga ne sax dans l'histoire de l'Afrique parce que barki démb maa ngi bëgg a wone benn vidéo mais vidéo bobo, euh, calculer le nu comparer la comparé ce que Aliou Sall fait c'est une petite chose c'est un petit cas ak lu Aliou Sall def voilà euh, collectif ñolank nous ñu lancer un appel aux acteurs qui en prennent part pour poser la pour imposer pour poser la libération de Guy Fallou Galassek et Ousmane Sarr Rien ne peut expliquer de dialoguer comme si, de rien, comme si rien n'était. Avec un président qui dénie aux citoyens le droit de s'exprimer librement par la, parole, l'image, la plume, la marche que leur, confère la Constitution. Euh, déjà euh, collectif Euh, ci libération immédiate ji Mari fallu euh, Fallou Galas Seck ak Ousmane Sarr mooy ñetti doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo des ci biir kaso bi te dara mënul expliquer nee nañu nooy mënee toog nga dialogue ak doomu aadama boo xam ne mayul ay dëkkandoom ay citoyen droit bi nga xam ne moom mooy droit bi leen yoon may droit boobu di ñu génn ñaxtu ci kàddu walla ak loxo wala ak doxin marche président bo xamné mayul ay citoyen bobu droit président bu mel noonu naka nga mané a ak koku nga ne yow da ngay dialogue noy mën na toogee nga né da ngay dialogue ak nit ko xamné respecté wul ay doomu lolou man ta nek il faut que les sénégalais ñu am lo xamné vraiment dañ koy respecté suñu bop ñu xamné euh vraiment aussi euh, Sénégal ñun ñoo ko moom Sénégal ñun ñoo ko moom kenn Sénégal bàyyu kenn moomu ko li ñu leen di gëmloo yëpp du dëgg bàyyu Macky Sall amul sax wàllu Sénégal doomu xaram boobu amul terrain Sénégal Macky Sall daf ñu respecté wul mar na ba dee ba il n'a pas laissé un seul terrain au Sénégal et ce fils de pute il vient au Sénégal il nous emmerde il nous impose des des vols il nous impose de la mafia kenn mënu ci dara mu mu tok ne sénégalais manam mom lu ko neex lay def sénégalais non c'est c'est c'est catastrophique ce qui se passe au Sénégal c'est c'est extraordinaire li xew Sénégal Sénégal rek la mëna xew ci aduna bi parce que en réalité euh, man fi ma ko rek moy au moins nous savons que Macky Sall ne nous respecte pas xam nga bu fekkoon sax au moins man nañu wax né ñun ñëpp man nañu tok seede ne ah. quoi qu'il s'en soit quoi qu'il en soit Macky Sall a un respect pour doomu Sénégalais. yi bu euh, je pense que sénégalais yi mën nañu am loo xam ne mën nañ cee jàpp mais ñun en tant que fils du Sénégal fils digne du Sénégal ñun ñëpp mën nañoo toog ñu rassurer wu ne Macky Sall non respecte pas voilà tey euh, respect bu ndaw bi ñu amoon bitim réew en tant que fils euh, ay doomu Sénégal. Euh, amatuñu ko respect bu ndaw biñu amone amoon bitim réew bi ñu dese respect bu ndaw biñu ñu dese woon bitim réew amatuñ ko respect bu ndaw moñu bitim les sénégalais on n'est plus respecté au niveau mondial parce que légui dañuy accuser ay terroristes légui les sénégalais y a le terrorisme qui qui qui vit au Sénégal voilà légui terrorisme dafa am Sénégal légui ci bir Sénégal rek. ngay dem ci réew baadoolo boo xam ne suñu président yi dem nañu euh, indi fa affaire u terrorisme te ñoom ils ne sont pas rendu compte que c'est un danger bien de choses à Boynar pour le barbecue <laughs> bu yéen waaw Boynar Boynar de ah naar jàmbaar la de Boynar daal ñëw na gane na léegi nag day ñibbi Sénégal tey la Boynar Boynar nee na day dem Sénégal xaw ma tey lay dem xaw ma suba incha allah dana dem ñibbi senegal nee na voilà Boy Naar moom vraiment jàmbaar la i daan i daan a wonderful wonderful jaar voilà Boy Naar def na liggéey bu extraordinaire donc Boy Naar tey day ñibbi Sénégal waaw jéggal leen ma ma jox leen exemple lii lii li Aliou sàll sàcc moo ko ëpp je manque les mots pour vous expliquer la vidéo dont je vais vous poster tout à l'heure. Ah, sûrement que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu et ils ne savent pas de qui il est question. Alors il est, ah, je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo. Alors la police de ce clan de Bia sont allés perquisitionner un autre membre du clan au nom de euh, de, il s'appelle encore comment ce, voleur-là, euh, Edgar, Alain Edgar Mebengo. On est allé perquisitionner chez Alain Edgar Mebengo. Le gars avait, jusqu'à ce, jusqu'à ce, ce jour, plus de 3000 milliards. Écoutez bien, plus de 3 milliards de francs CFA en monnaie en euros. Je vous prends juste parce que celui qui a fait la vidéo, et selon mes sources, hein. les, billets de, 500 euros, donc les chiffres officiels parlent de environ 60 millions d'euros. Ça, ce sont des chiffres officiels. Vous-même, vous connaissez le Cameroun. Vous pouvez regarder la palette des billets. ce n'est pas, pas de la fausse monnaie. C'est des billets authentiques. Les j'ai dit, le Cameroun déclare à l'heure que je vous dis 60 millions d'euros en billets de 500 euros. Et en billets, vous pouvez regarder l'OTA. Faites vos estimations quand vous voulez. Mais je vous dis, le minimum de la monnaie en CFA était plus de 3 000 milliards. Et nous, nous savions bien que le budget du Cameroun, il est à 2 milliards, à 2000, 2500, 2000, quelque chose de 2 milliards. Quelqu'un à lui seul, il a en espèces, craquant, cash, plus de 3000 milliards. Le budget, plus que le budget du Cameroun, en espèces. Est-ce que vous pensez, et en plus de ça, sa femme pour vouloir effacer les traces, elle voulait mettre le feu, c'est-à-dire il ils préfèrent brûler, jeter à la poubelle que l'État reprenne au moins, même si ça, prendra d'autres couloirs, mais au moins qu'on nous rassure en disant que voilà, cet argent est entré dans les caisses de l'État. Mais on préfère le jeter à la poubelle. Mais je suis vraiment énervé, vraiment dans tous mes états, vous ne pouvez pas imaginer. et là, je vous dis, selon mes, mes sources, plus, je vous dis, plus de la moitié a été brûlée. C'est-à-dire près de 1500 milliards de francs CFA brûlés. Est-ce que vous pouvez imaginer que chacun fasse, son commentaire et son analyse Moi, j'ai fini. Voilà, euh, l'escroquerie en Afrique euh, tey ñiy à alalu Sénégal bi dañuy dem bo waxee ak ñom ñu ne la tay euh bo waxee ñu ne la ñun ñoo tay comme manam man tay euh donc euh, li am importance moy mais qu'attend le BCE intervenir au Cameroun well tu as vu euh, c'est pas possible autant d'argent amna kuy xam nga doomu ma boîte, len di commentaire da ngeen di commentaire ci lolé lu len leer euh, man Amérique là je peux vous dire que pendant la guerre d'Irak euh, comme dafa am euh, ay liggéey yu doy waar yu bari yo xamné gaay dañ ko def l'Irak, def Irak ak aide bi ak khalis bu bari bi ne passait pas par des banques et c'est comme un montant de presque 200 milliards de dollars qu'ils ont mis en Irak pendant la guerre ils le le mettaient dans des conteneurs bu leen fàtte ne transitaire là un moment j'avais aussi un contrat avec the US Army euh, ak société bu tudd Musk donc amoon naa euh, contrat boo xam ne c'était avec l'armée américaine US Army donc dama laan daan yóbbul ay conteneurs wala ma génneel leen ay conteneurs mais parfois euh, comme yenn conteneurs yi bu dee dafa am yenn valeur u alal wala yenn mbir yi da ngay gis conteneur bi ci boppam day différent bien vrai que nag duñ ko escorter pour won nit ñi ne xaalis moo nekk ci biir parce que dañu bëgg gars yi dajji ko ci biir port bi mais dama bëgg rek ngeen xamné oui c'est possible d'avoir euh, si euh, euh, nombre de xaalis bi du jafé jafé parce que bo leen gisé barki Demba Ndiaye bi ñu jappé président Algérie bi wala président Algérie bi bi mu daano bi ñu démé kërëm gis ngeen façon xaalis buñ ñu fa fekk danaa li la xawma quelque chose vous avez vu la somme d'argent qu'on a trouvé chez lui wala président euh, euh, dof bi ñu japp euh, fële Soudan Soudan la wala je pense pas que Soudan wala Somalie je ne sais pas le président là euh, gis aussi ñaata dollar la nous fait ci donc euh, les dëgg la euh, mais incha allahu il faut que xam rek que on est sur le bon chemin nañu continuer ci yoon bi ñu nekk yàlla dinañu may ndam nañu continuer faire la guerre à Macky Sall et les bandits qui l'entourent yalla Dieu nous fera vainqueur inshallah yalla dinañu may ndam. blanchissement bi doomu xaram yi di dox ak sàcc bi ñi nga xam ne moom moo leen tax a jóg pour yàq dëkk bi Tunisie waaw incha allahu ya rabbi yàlla dinañu may ndam yàlla dina may sénégalais ndam Aziz waa Bouteflika voilà en Algérie Abdoul Aziz Bouteflika déedéet mais defe naa kii Tunisie la président Tunisie Algérie la waaw Algérie la Algérie la c'est le président algérien voilà donc nga gis ak président Al bashir ma waaw Al Bashir, Omar Al bashir Omar Al bashir biñ ko jappé ba fekk prisonnier bobu nga xamné mom la un chef de l'armée ou police ou quelque chose cette personne il l'a laissé en bas là-bas pour presque 30 ans doomu a yi dafa bi mu génné, il était comme ça il était aveugle et tout mais deewul parce que bakkan yalla ko yor mais li ma di wax rek les sacrifices que j'ai faits, peut-être un jour c'est dans l'histoire que vous le lirez peut-être peut-être pas S'ils réussissent leur coup et ils ne vont pas réussir parce que y le le mais si ils ne le réussissent pas inshallah ils ne le réussissent pas S'ils le réussissent ils le réussissent mais que les sénégalais savent que on est sur le bon chemin internet bi, rek internet bi, rek génne buumu njaam bi ci Sénégal pour toujours internet bi kese bu dul Tunkara na doon keneen bu dul Assane Diouf na doon keneen bu dul euh, Guy Marius Sagna na doon keneen bu dul Abdul euh, bu dul xeexkat bi Abraham bu dul euh, waa Yaana Maar bu dul maanaam nitu dëgg bu dul France dégage bu dul aar li ñu bokk bu dul ñoo lank na sénégalais yi continuer lànk na sénégalais yi continuer xam ne xeex rek mooy libérer nañu continuer xeex comme ni ma leen ko waxee bis boo leen toogoon ñu ne la Tunkara dee na ndax bu dee cause naturelle mën naa nekk xam nga man naa dee mën naa dee ci cause naturelle mën naa aussi dee ci accident mën naa aussi dee ci yeneen yàlla moo xam mais euh, nañu continuer xeex nañu continuer xeex nañu continuer à nous continuer à xam ne xeex mooy libérer nous continuer xeex on n'a qu'à continuer à faire la guerre à Macky Sall nous continuer faire Macky Sall continuer à faire, këram continuer à sàcc continuer leen bombarder de tous les côtés ba Sénégal am ndam loolu rek moo nous intéressé Sénégal nañu continuer xeex continuer xeex ba changer suñu dëkk parce que en réalité Sénégal le Sénégal n'est pas très loin d'un bon développement parce que nous avons ñaari recette, mi ngi mel nga nga spices lan des moy nga ko safara rek mu ñor safara la du ci safara tamit nga nga mariner ko rek nga jaxassé ko mu ñor salade la donc lolu nous Sénégal Sénégal amna am nañu li war a dem ci ndugg bi euh, am nañu ndawal li léegi li ci des rek mooy ñu togg ko donc togg boobu nag moom mooy réseaux sociaux yi bu ñu yàlla dimbalee ñu dindi fa médiocre yi ñu indi fa ay nit yoo xam ne incha allahu rab rab rabbi dinañu ñëw euh, jubbanti dëkk bi loolu mooy delloowaat euh, Sénégal ci yoon mu ne comment tu as vu la dialogue national c'est pas une dialogue nationale c'est un mafia national Macky Sall y a ngi dialogue ak moom da fay nu mu le doré. c'est tout Macky Sall tant que tu le donnes le temps de le parler il va chercher une un autre moyen pour te faire tomber lool rek lay dox Macky Sall tout ce qu'il dialogue avec les Sénégalais c'est de le faire tomber la le seul moyen de faire quitter Macky Sall moy ngeen Dakar ndem tal ko japp ko yew ko bamu deuguer dëgër ngeen ndem lool rek moko mara a ci den Sénégal tant que engagé wuñu Macky Sall directement won ko doole physiquement du génn Sénégal dina len indil ay dialogue dina len indil ay doomu adama dina len indil ay serigne dina len indil ay mara naxaate rek lepp ay banditisme la tout ce que Macky Sall pose toute pierre qu'il pose mais mais mais allez souligner où sont les poses pierres que Macky Sall a fait dans ses projets cela vous répondra à la dialogue nationale boo leen demee xool pose pierre yi Macky Sall defoon ana train express régional ana lii ana lële ana li Macky Sall waxoon fii ana li Macky Sall pose pierre yi mu def rek di ngén tontu sen question si Macky Sall a accompli ses promesses donc ce qui veut dire qu'il va accomplir la dialogue national mais bu deful yooyu xam len né dialogue national ta nek mais c'est une réalité voilà c'est une réalité A ah, debi mom moom bëgg naa ko mom sama papi yëpp mo leen ray mom debi mom moom sama wa kër yëpp leen ray oh là là sama rakku pap yi yow fa leen rey sama pap mom man dal mbir mi daal dañ koo donn daal dibi mom dañ ko don te buma fi jógee sax bo moytul yaangi ni di dugalaat dibi sama xel dina dem dibi donc xol yi dinañu gëna metti les cœurs vont faire mal mais mafia bi 100000 logements benen mafia tu connais ce qui m'a fait mal il va commencer ses logements et il ne va pas les terminer donc il va prendre notre argent aller faire de la manipulation et il ne va pas terminer il ne va pas terminer ses logements voilà, beaucoup terminé. terminer il faut savoir Macky Sall travaille de deux manières euh, la première façon c'est par exemple de commencer un, un, bilan et donner quelque chose par exemple il nous commence un projet de 10 milliards 10 milliards et en réalité lui en réalité le projet doit coûter 10 milliards et il nous facture de 250 milliards dans les cas comme ça, Macky Sall, il termine les projets. Par exemple, s'il te taxe d'un projet de 10 milliards, il te taxe 250 milliards. Des projets comme ça, il peut les terminer, comme les rues, comme il l'a Touba, il l'a Fouta, il l'a comme ça, il l'a, il l'a là. Il peut terminer les projets comme ça. là. Mais la deuxième façon du travail, moi, il pose pierre et il va prendre crédit et il ne te dit même pas, il, annonce un projet, mais il ne le commence même pas. il le commence, mais il met un peu d'argent et maintenant le projet est calé. Et maintenant, il change le projet et il le donne un nouveau nom. Euh, plan Sénégal émergent, euh, il va le changer. Il le changer, il il va le changer, prend Sénégal euh, euh, euh, terminez terminer les projets il va amener un nouveau nom donnez-lui donnez-lui un peu de temps il viendra avec un nouveau nom pourquoi les Sénégalais la partie de Macky Sall me déteste beaucoup parce que je les connais banditisme dafa am bu dafa Macky Sall dafa doy dafa il est temps que Macky Sall on fait face à lui Macky Sall dafa il est temps que sénégalais ñu né doyna Macky Sall on a passé 2000 emplois promis au peuple 2 <laughs> millions non attends Macky Sall a promis combien d'emplois au Sénégalais si je ne me trompe pas son premier mandat c'était 500 000. et il a créé absolument zéro il était à la 166e place mondiale. Maintenant, il est à la 168e. Donc, même si nous avons le développement sénégal, nous savons que le Sénégal est endetté de 20 000 milliards en ce moment. Notre budget est seulement 3 000 milliards. On est endetté de 20 000 milliards en ce moment. Sans compter nos propres, euh, notre propre argent qu'on a déjà dépensé. On est endetté de 20 000 milliards. Cas numéro 1. Cas numéro 2. Macky Sall, dans son deuxième mandat, il a dit aux Sénégalais, il nous a promis qu'il va créer 2 millions d'emplois. 1 million, cette fois-ci. Dolingis 50 000. Vous n'allez pas avoir 10 000 emplois. Donc, euh, je pense qu'il est grand temps, comme Nimalen Koywache encore, il y a le 10 janvier qui viendra. Moi, je sais qu'on va gagner. Man man, dans, mon, dans ma tête et dans ma conscience, je sais que le Sénégal va avoir la victoire enfin en toute société mondiale que pour continuer persister continuer di Madame, gagner Madame si tu continues à te battre tu auras la victoire un jour Inch'Allah allah incha rabbi Sénégal dinañu am ndam xaw kañ lay don suba te dans un an maintenant donne dans deux ans. Mais moi, je donne une limite. Parce que j'avais limité que Makissal il va tomber dans un an. Et ça a fait peut-être quatre mois. Je lui donne encore huit mois. Dans huit mois, Makissal on doit le faire tomber. Je sais qu'on va avoir la victoire. La victoire ne sera pas facile. Mais elle est proche. Victoire bi djegeoul, yomboul. Mais Victoire bi yomboul, yomboul, te dina met. « Waouh, mu qui veut un troisième mandat qui veut même un quatrième mandat comme Ablai Wade le voulait est-ce qu'il l'a reçu c'est ça la réalité qui veut un mandat qui <laughs> veut un mandat ne donnera pas Maki un mandat un mandat tu le veux ne te, le donne pas voilà Maki veut un mandat waouh, il veut un troisième mandat peut-être même un quatrième ça on le connaît euh, ne quittez pas une seconde je vais voir mon téléphone Yes, hello? Yeah, Jack, hi, how are you? I'm okay. Yeah, a, a, a 2020 Land Cruiser with the full option with the tech package and all. Okay, is this your cell phone or is this the uh, company's number? Okay, so I will call you back. I'm in the middle of a conference. I will call you as soon as I'm done. Uh, you can call me back in 35 minutes to be exact. Thank you, Jack. Bye. Have a day. The Big 12 has been super competitive. Uh, Euh, saay saay wo woyu mooy baayam euh, donc euh, nañu continuer rek continuer xeex ak moom continuer jàpp tewo bàyyi te ñu xam ne que lii maye ndam comme ni ñu ko waxee bañ rek mooy maye ndam boo amee jëkkër ju baaxul ci biir kër football ko mu génn rek moo lay may jàmm comme boo amee jabar ju baaxul tamit ci biir kër football ko mu génn rek moo lay may jàmm Euh, bu la yàlla mayee nag ay doom yu baaxul euh, beneen choix bi nga am rek mooy nga gën a góor góorgóorlu nga jéem a xool ni ngi leen jubbante donc boo leen mënee jubbanti à bas âge moom mooy doon sa sa coobere mais ngeen jéggal ma peut-être euh, ni ma koy waxee yëpp ci waxin du doon ni mu nu jekk parce que je ne suis pas trop dans les polémiques je ne suis pas aussi trop dans les détails aayuma trop ci li nga xam ne loolu ngeen bëgg may def toujours mooy di defanteeg doomu aadama yi mais euh, Macky Sall veut un troisième mandat il veut un troisième il veut un quatrième il veut un cinquième qui est le modèle de Macky Sall c'est Abdou Diouf Abdou Diouf il avait combien de mandats il a fait trois mandats et les Sénégalais l'ont bouté dehors parce que les Sénégalais ils n'étaient même pas réveillés en ce moment mais si doon guddi un Sénégal yi ñu sénégalais, Abdou Diouf un troisième mandat du gagné deuxième mandat donc ce qui va arriver Macky Sall c'est exactement ce que j'ai dit il veut un troisième mandat. C'est la raison pour laquelle il ne finira pas son deuxième mandat. Il veut un troisième mandat. C'est la raison pour laquelle on ne, le, laissera pas finir son deuxième mandat. S'il ne voulait pas un troisième mandat, on allait le laisser finir son deuxième mandat. Vous faites Macky Sall respecte le sénégalais il a annoncé ci dialogue politique Mais il ne veut pas un troisième mandat na a annoncé vous qui pensez que vous dialoguez avec